malongo may leen ko naan doroobe yaa ngi as malongo may leen ko naan doroobe yaa ngi as malongo fait dans le secteur éducatif nekk tey le parrain de cette grande finale nekkoon directeur Koungheul 6 campement nekkoon directeur école Ngouye Diéry nekkoon directeur école Darou Bambara nekk tey attaché de cabinet du ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique nekk en même temps de Koungheul kooku mooy Thierno Bokar Ly parrain de cette grande finale qui oppose l'école El Hadj Abdoulaye Camara à l'école El je crois que comme ni ñu ko waxee délégation IF bi ñu ci ràññee inspecteur SG Ousseynou Sow inspecteur Cissé point focal du sport scolaire mais aussi notre sœur notre dame de fer Aïssatou Sakho chargée du sport scolaire de l'IF de Koungheul le parrain Thierno Bokar Ly suñu mag suñu xarit mu ngi ànd ak la première dame la première dame muy madame Ly ne Dior Dabo ànd ak moom ñëw ci grande finale bi ànd ak Modou Diouf ànd ak Pape Mor Diop ànd ak Youssoufa Diop chef du protocole de la préfecture ànd ak Lama Diallo ànd ak Amady Fofana mi nga xam ne tey suñu xarit la nekkoon chargé de sport scolaire à l'IEF de Koungheul ànd ak Ibrahima Birame Faye nekk président du club de football mais nekk en même temps collègue Thierno Bokar mi ànd ak Moussa Sène directeur nekk enseignant à l'école Koungheul 5 de Koungheul ànd ak man Souleymane Tounkara intendant bi lycée El Hadj Ibrahima Bada Koungheul waaye ànd ak sëram di xaritam di collègue am mu yaay Diallo Gaye comptable au lycée El Hadj Ibrahima Ba de Koungheul madame Sall ak Samba Touré di kenn ci la parrain Thierno Bokar Ly waaye ànd ak Fafa Mbaye mi nga xam ne foo gis Thierno Bokar Ly gis ko c'est comme l'homme et son kon yaakaar naa ne ci góor ñi ñoo ak la parrain Thierno Bokar Ly jigéen ñi madame Ly Dior Dabo bi muy jóg dafa ànd ak une très forte délégation délégation dans laquelle on peut citer di sœur ci Thierno Bokar Ly ànd ak Sona Dabo di di kenn ci Dior Dabo ànd ak Soxna Mbaye ànd ak Nafi Thioune ak Fatou Mbeng ànd ak suñu sœur suñu xarit di artiste Fatimor Seck ak troubam ànd ak Gindaal macha allah mi nga xam ne li ko ñor mooy Koungheul li ko ñor mooy développement Koungheul moo tax lu laal càmmiñam ñi laal ko kon gindaa jërëjëf ci sa teewaay ànd ak Ndate Sène ànd ak Mama Jambar ànd ak Salamane ànd ak Mariétou Gueye waaye ànd ak Sëtu Mbay yaakaar naa ne su ma juumul ñooñu ñoo ànd ak Dior Dabo ñëw tey ci bi nga xam ne moom lañ tuddee borom këram muy Thierno Bokar lii waaye aussi ñu ak suñu frère suñu xarit papa Jibi Ndiaye moom muy Jibi fay liggéey ak Thierno Bokar li école 6 waaye ànd ak soxnaam ànd aussi ak madame Sène ne Aram fay ñoom ñëpp tey ñu ñëw ci final bi ànd ak le préfet fait un bon choix ndax tey ki nga xam ne il a servi le système di doomu Koungheul di doomu dëkk bi inspection de l'éducation et de la formation de Koungheul jël final bu mel ni tuddee ko kon ñun ay collègues am ñun ay xaritam ñun ay collaborateurs am da leen di sant gërëm ci turam bu baax ci li ngeen jël bés bu mag bi tànnee ko tuddee ko Thierno Bokar lii waaye aussi di gërëm ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom te ma lim leen lépp luñ jàppoon ñu bàyyi ko ñëw tey fekkee ci final bi gërëm la presse muy xibaaru bambu mi nga xam ne macha allah événement bu am solo bu ne ñu gis leen suñu wet gërëm Firi foo waaye gërëm les rajo communautaires yi nga xam ne aussi ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu wax ne le parrain bi mu ñëw tey ci bi joxe na cent mille francs pour frais d'organisation ñaar fukki junne la jox pour ñu organiser bi ki gagné muy vainqueur dana am ñaar fukki junne kiñ gagné dana am fukki junne vainqueur bi tamit dana am jeu ak ballon ak trophée vaincu bi dana am cinquante mille ak jeu de maillot kon yaakaar naa loolu la Thierno Bocar li indi tey fii ci final communal bu IEF bu Koungheul yor si sport scolaire kon Thierno merci encore une fois ci li nga def waaye di gërëm délégation bi nga àndal gërëm artiste bu baax a baax ndax Cheikh Faye ak Fatimor Seck bi Thierno Bokar li xewlee ñoom dañ ne dañuy ñëw def seen prestation ndax démb la woon bàyyi ak bàyyi la woon Amadou lii ak ñoom la woon suñu bàyyi Amadou Ly kon tey Thierno bi nga xam ne mooy daawam suñu maire a Gaye am lii bés bi ngeen jàpp lépp lu ngeen ba yoon ñëw fekkee Fatimor Seck Cheikh Faye yéen artistes yëpp gërëm nañ leen sant leen bu baax ci seen teewaay nous sommes très contents Nafi Fall Nafi Fall moo tax ma yóbbu moo ma yóbbaale ci Nafi Thioune kon Nafi Fall jëf kontaan bu baax kon sans plus damay jox gaz yaakaar naa gaz ñëw na nekk artiste incha allah bu Thierno Bokar lii di wax daa leen jox ngeen def prestation bu am solo. bu Thierno Bocoly di wax laa leen jox kàddu pour ngeen animer stade bi ñu jox kàddu gi suma xarit suma frère Samba Touré mu sànni ci kàddu def témoignage ci magam ci xaritam muy la parrain Thierno Bocoly lii kon Samba nga ñëw sànni ci ay kàddu. Souleymane Tounkara di nuyu gars yi fi toog yëpp su ma limee damay juum mais mën naa wax ne bés bi tey bésu mbégte la lu tax ma ne bésu mbégte la Thier ku neex koo xam ne ku neex a témoin la. ndax ceer ñun jeunesse su Koungheul ñun liñ xam ci Thierno Bocar lii mooy partage ceer nekk na nit koo xam ne nii wàcce na boppam nit ku suufe la te waxuma lu jëm ci mbirum administration mais jeunesse su moo ko ñor ndax lu tax ma ne jeunesse su Koungheul moo ko ñor ku gis taxawaay bi mu def tey rek lii moo gën a néew ci li nga xam ne mooy taxawaayu ceer ceer am na ñoo xam ne nii sax pour ñu xam dëgg dëgg dëgg ceer dama maanaam baatin la ceer boo koy xool ci zaahir munoo xam cerno li dëgg-dëgg mais ci baatin ba ngay xool fu ma waxee nag dafa xóot ndax ceer au lieu muy yëg dara di la jox saa su ne mu ngi xool ku bëtam xonq pour mu dimbale la pour noo jéem a taxawee muy jeune muy mag muy gone loolu nag yaakaar naa ne li may wax waa Koungheul ñoo ma si gën a xam lu leen leer moo tax bésam bii nii tey dina am bés bu gën a màgg bés bii nii ndax ñun xam nañ ci dara parce que kuy taxaw doomu aadama waxuma sax ci beneen domaine Thier boo koy boo ko booy wax ci moom doo wax ci beneen domaine mais dangay wax ci taxawaayam ci Koungheul ak ku xam Thier euh, nu mu mel tey bu ko neexoon tey mën naa wax ne nii mën na am neneen nu mel mais melul dara Thier nu mu mel ren la mel nu mu mel tey la mel suba kon mën naa wax ne nii bésam bii nii tey Souleymane bés la boo xam ne bésu mbégte la ñun mën nañ cee def témoignage man de sawar naa si li ngeen ma jox parce que bu ngeen ma waxee na ma naa wax ci moom mbégte lay doon ci moom. waxuma la dara xëy ndaw yi rek. ceer lim ci def. ndax bu ko tey bu ko ci def de mais def na ci département Koungheul ci biir xëy ndaw yi loo xam ne nii yaakaar naa ne dafa dem sax foqar ñi pour dugal ci département bi. kon loolu yaakaar naa ne yombul nit a ngi mën dara te ko def mais ku nekk ci dëkk di jëriñ ñi nga dëkk ñi nga xam ne ni yow ak ñoom yéen a bokk service. nga am foo leen teg yaakaar naa ne boo amee bés bés bu melee nii lii du nekk loo xam ne mbetteel la ci nit ñi di gërëm ñëpp di sant ñëpp jeunesse bi ñëpp a bég ci yow lii nii tàmbali la ceer mais di nga am lu gën a màgg lii li ci kanam nag raw li bët ndax li ngay def ah yaakaar naa ne nettali jaru ko waaye am na ñoo xam ne xam nañ waaw jërë jëf waa Koungheul maa ngi nuyu ñëpp di jël sama nuyoo nag di ko jox si président ODCAV comme si football lañ nekk di la ko siyaare bu baax di la wax nga joxal ma ko waa Koungheul aussi ma nuyu sama papa Youssou Diop di nuyu sama grand frère Thierno Bokkali ak madame di wax ne wax ji bett na ma waaye li ma waroon a wax si Thierno xajut fii ci stade Koungheul waaye sant yàlla comme lu lu lu duuti nag lu xaju si jënd ñi mos si rek li nga xam ne mooy li am solo Thierno man dama ko téye ñetti point damay gis muy stade ma di ko liir mu ne Koungheul moo ma ñor man nag ku Koungheul ñor danga may ñor Thierno dina la dimbale te du ci boole ay wax Thierno su la jotee si yoon dina taxaw nuyu la te du ci diisal lenn loolu nag su ko nit melee am ko di ko dugal ci département la ngay man mooy nga dem wax ca la ca xam yàlla gëm na ne bis bii tey keneen mënoon na fi organiser du ma fi gis te nawetaan ba mu déparé Koungheul gii ba tey chaque match si damay ñëw leer na ñii mais c'est la première fois tey ma yëkkati sama kàddu di wax dara warul ko nag lu dul jëmu ji li ñu war a wax ci moom xajut fii mais yàll yàlla dañ koy bàyyee ak yàlla parce que tey xale yu ndaw yi nga xamante ni amaguñ benn bàkkaat ku leen gàntalu seen programme bàyyi xel ne yàlla du la gàntal ndax guni yi amaguñ dara xamaguñ dara tey nga taxawu leen seen bis bi taxawaay bu mel nii yàlla gëm na ne fii nga jëm jarul ngay tiit jarul ngay ragal da nga fa yegg insha allah loolu rek lañ ciy wax di la bàyyi xel bu baax a baax di wax ne Koungheul la ngi nii Koungheul moo la ñor li ngeen wax si xëyu ndaw yi man am na lu ma si xam benn si man bi xëyu ndaw yi génnee moom ma njëkk wax ne ma déposé sa carte d'identité bi nga joxal ma ko Youssou Diop mënoon na wax ne ku santu lii duma la ko jox mënoon na wax ne ku dëkkul Koungheul du ma la ko jox mais maa nga dëkk ba commune Fass Cekkeen mais daf ne ma déposé jox ko Youssou Diop dinaa ci taxaw te nam ko waxee noonu la ko defee kon père ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la kontaane jë Souleymane Tounkara jëmm ji toog social ji toog macha allah social la te bu ma waxee social la ñi fi jaar wax nañ ko dama koy waxaat rek encore di ko répété waat man nag bala ma cee sori dama koy ñaanal fan mu gudd ak wér-gu-yaram mook njabootam ak képp ku ko bëgg damaa toog rek sama téléphone sonné Cheikh dañ ma pare ne final te final bi bëgguma ngay dox ci mbedd mi di ko dégg waaye dafa am lu jiitu loolu dafa ma boole ci boppam. faafa mbay mi fi jóge léegi saako ceeb bi ma jox ci weeru koor bi faafa mbay mi moo ma ko jox et pourtant keroog maa ngi génn sama ceeb jeex ma jaaxle ci weeru koor bi ndax sama ceeb jeex na na ma juufee ni jàpp caalit ak ndawee ni ak càlleen yi d'accord ma génn rek ñëw permanence mu ne ma seex kaay walla voilà voilà faafa mbay na la jox saako ceeb saako ceeb bi dama kontaan am fierté macha allah euh, taxe bi ma ko jox muy yóbbu ko kër ga bi mu eggee kër gi njaboot gi yëpp kontaan parce que njaboot xam na rafetaay ma pour xàmmee na ki la dog ak ki la wokku sol la rajo ji nekk ci sunu jàkka ji Souleymane Tounkara keroog bi ma ko toqalee ci noppam ma ne ko sunu rajo dafay graisser souvent automatiquement rajo bi ñuy nodd ci jàkka ji ne woon naa la te gisagoo dara ni rajo boobu ñu niñ koy nodde ak liñ ciy wax muy dem ca kaw fu sori yàlla na nga weesu foofu waxoon naa la ko te dinaa la ko waxaat encore une fois xëy na sax buggul ma wax ko waaye nag géer yéen a koy wax ku def lu baax ku ko wax la bëgg kuy saraxe yàlla rek a tax euh, démérité wuñu donc ñu xam ne sport moo demee noonu il faut mu am ku gagné mais il faut mu am kuñ gagné aussi donc lépp na nekk ci fair di wax ne Matar vraiment tey dañu kontaan si bis bi parce que bis bu am solo la euh, tey euh, doomu Koungheul bëri nañu bu fekkente ne inspecteur ak ñi nga xamee ni ay collaborateur am neen tànn ñu jagleel ñu bis bi donc dañ si kontaan bu baax a baax a baax a baax di ko remercier encore une fois de plus euh, si choix bi nga xamee ni def na ko di wane ne ñun école rek moo ñu soxal parce que ndaw école leen donc produit wu système éducatif bi lañ donc nekkoon fii nekkoon directeur d'école amoon jaar-jaar si wàllu école ba ni yàlla defee ñu jóge fi nekk feneen tey donc occupé yeneen responsabilité mais loolu it tamit mënul tere ñu fàtte mukk fi ñuy jóge woon te nit ki amul lu mooy dëkkam amul lu moy fi mu cosaanoo amul lu mooy fi nga xamee ni foofu la nekk tey ñun si système éducatif bi moo ñu meññi donc ba ñu nekk lii ñu nekk donc vraiment dañuy remercier ñëpp di féliciter ñëpp di wane ne tey kontaan nañu ci bis bi kontaan bu rëy rëy rëy di montrer encore une fois de plus vraiment suñu disponibilité à tout moment que le besoin se fait sentir inspecteur ñun on est disponible à accompagner le système parce que amuñ lu mooy moom te fépp foo xam ne yaakaar nañ ne aussi mun nañ ko fa jéggaan yi tamit fas yéene ñu nekk bay Fall bi pour fas yéene ko jéggaani ji indi ko donc leneen loo xamee tamit parenage la tamit ñun warloowu nañu saa su ne su ngeen ñu soxlaa lu ngeen ñu teg ñu gàccoo ko parce que xam nañ ne yéen a tax ñu nekk fi donc encore une fois de plus Koungheul la ñu am xale yi dañ leen di ñaax ngeen gën a góorlu gën a discipliné wu gën a yaru parce que sport dafa nekk loo xamee ni tey discipline daf si am solo naam peut-être yenn yi mënut a ñàkk mais nañu sóoraale xam ne lépp discipline si lay tënku si lay tegu donc ba tax na ne sport si biir école dafa nekk loo xamee lu am solo la comme ni koy waxee tout le temps un esprit sain dans un corps sain tey xale yi bu fekkente ne tàggat nañ leen ba ñu am wér gu yaram ba ñu am wér gu yaram yaakaar naa seen xel aussi mun naa sell ba nga xamee lépp luñ si mën a dugal mu mën a dugg si anam nu mu gën a baaxee te nu mu gën a nu mu gën a yeewoo donc moo tax ñu won ne sport lu am solo la xanaa kay di ñaaxaat encore les autorités euh, académiques à que ñu gën a diversifier sport bi mu bañ a nekk rek ci wàllu football ñu xool en perspective si y a possibilité aussi d'introduire d'autres compétitions si yeneen discipline yi nga xamante ne moom moo nekk tamit loolu tamit dafay gën a baaxal mbir mi rek di lancer une invite à tous les Kounguellois fu ñu fu bay fépp fu waay nekk ak responsabilité bu waay munti am yaakaar naa ne amuñ fu mooy fu ñu dëkk amuñ fu looy suñu cosaan donc lu ñu mën mooy vraiment ñu leen lancer une invite à ce que ñëpp jàppale le système éducatif jàppale vraiment le secteur xam ne moom rek la ñu am te loolu lañ mën a noonu lañ leen mën a taxawee encore ci seen i activité pour accompagner leen dans la mesure du possible parce que gis nañ ne vraiment ñoom ils sont en train de faire des efforts ils sont en train de faire de leur mieux ba nga xamee tey doomu Koungheul ñu ngi leen di ràññee fépp foo xamee ni ci Sénégal ñu ngi leen di dégg seen tur te loolu yëpp ñoom seen parlu la ak donc loolu vraiment inspecteur dañ leen si félicité bu baax a baax di félicité l' encadrement di félicité tous les collègues yi nga xam ne ñoom nekk derrière bu di leen jàppale si liggéey boobu vraiment di wax ne kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax di continuer aussi balaa may terminer vraiment remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo ma si bis bi mooy su may àndandoor su may xarit su may doomu ndey vraiment bàyyi seen yitte ñëw fekkale si ma si bis bi parce que nit amul lu loolu aussi vraiment c' est quelque chose qui me leen di remercier ku si nekk si turam ak santam di remercier les artistes di remercier aussi la presse comme ni ñu ko waxee la presse de Koungheul vraiment gàcce ngalamam parce que fu tey fu waay nekk si adduna bi foo munti nekk da nga xam xibaar yi nga xam ne moom moo xew Koungheul te loolu aussi on le doit à la presse de Koungheul di lancer aussi vraiment ñoom tamit fépp fu leen mën a jàppale ñu jàppale leen parce que tey ils ont la volonté mais peut-être ce sont les maigres ce sont les moyens loolu aussi ñu si lancer une invite à tout le monde ñu ñëw jàppale leen di dëgg yàlla Cheikh Faye maanaam moom du tey yàgg nañu te depuis may nekk fii dans le système éducatif bi jàngale activité yi moo doon am yëpp moom moo doon ñëw di ko animé moo tax ba mu yëgalee aussi mu ne ma damay def sama participation laajuma la dara mais je viens damay def sama participation donc Cheikh vraiment merci Fatimor aussi ñu ngi koy remercier c' est une sœur c' une sœur parce que ñu ñoo bokk nekk tout le temps lépp lu ñu xew day jàpp si vraiment ngi remercier ñëpp encore une fois de plus mes sœurs madame qui ñëpp ñu ngi leen di remercier encore une fois Vraiment que la, soirée, que la vraiment que le meilleur gagne mu demee. ah merci euh, yi mooy njëkk a yëkkati mooy kaddu ngërëm ngërëm d'abord ci parrain bi monsieur Ly euh, monsieur Ly li mu def ni bettuñu ndaxte ñu nag moom démb la woon fii la nekkoon directeur école mu am taxawaay bu rafet mu bokk ci directeur yi ñu gën a respecté yi ñu gën a naw. donc loolu moo tax bi ñu ñëwee ba war a def final bi sunu xel daj ci moom et mébét bi ñu amoon ci moom yàlla tasul yaakaar te yàlla du ko gaaw a tas ndax nit ki xam nañ ko euh, monsieur Ly ñoo ngi lay gërëm di la sant IEF gërëm na la bu baax tey moom moo fi buggoon teew waaye yàlla dafa dogal dafa am benn yoon bu jàmp bi tax actuellement nii nekkul Koungheul moo taxoon mu santoon ma ma ñëw ànd ak yow véritablement ñu mottali yéene bi muy final bi final bi rafet na def nga ci sa loxo def nga ci ay moyens loolu itam ñoo ngi lay gërëm di la sant wane nga ni doomu Koungheul nga wane nga ni Koungheul ñor na la moo tax moyens yi nga génne nga génne ko loolu yëpp pour bégal jeunesse Koungheul bu ñu waxee jeunesse Koungheul élèves yi la ndax ñoom ñooy ji bi nga xam ne ni Koungheul ci lay compter ëllëg te comprendre nga ni itam sport ci lañ mën jaaree pour gën a suqali xale bi ndaxte dañu ni un esprit sain dans un corps sain balaa ngay mën a jàng jàng bi dugg il faut yaram bi itam li si war a nekk nekk ci moo tax ñuy jéem a def ay jéego ati yëpp pour que sport scolaire véritablement mu ràññeeku ci biir département Koungheul ci loolu ñoo ngi félicité acteurs yi nga xam ne ñëpp ñi fi nekkoon depuis démb ba tey di jéem a fexe pour sport scolaire bi gën a jëm ci kanam tey suñu xel dal na ñi fi nekkoon démb am na luñ fi jiwoon ñi fi nekk tey véritablement ils encore yow musulman nga ñëwaat defaat lu mel nii donc loolu en tout cas ñun on est fiers ñun technicien de l'éducation ñun ñi nga xam ne ne nguur gi tànn nañu indi ñu fii mu ne ñu na ngeen fexe ba éducation dem ci Koungheul ñun suñu xel dafa dal ndax saa yu ñu gëstoo gis waa doomu Koungheul yi nekk suñu gannaaw et tey final la woon mbir mi jarul coow liñ ci dama mooy foofu mën nañu wax ni classe bi mooy continuer fii école 1 ak école 3 benn la coupe bi IEF Koungheul moo ko jël donc jarul xol yi di jóg tey fête la bésu fête la bu école 3 remporté coupe bi na mel ni école 1 moo ko remporté na mel ni école 2 na mel ni école 5 na mel école Koungheul yëpp la donc nañ ci jàppee noonu ndaxte ñun ñëpp benn mbokk bi la c'est la famille éducative de Donc la fête a lu belle. Nous remercions tout le monde. Nous remercions le comité d'organisation bi nga xam ne nii musuñu jóge depuis bi ñu commencé compétition ba tey Dame Kobar nekk ci sa Sakho nekk ci mais itam l'inspecteur chef de district bi nga xam ne ne moom mooy yor mbiru sport moom tamit ak professeur yëpp ñoom ñëpp ñu taxu ci donc lii dañ leen di gën a ñaax rek li ngeen di def nii amu leen ci amu leen dara lu leen ci fay waaye mbégte xale yi jar na ko li ngeen doon def démb gën leen ko def tey ndaxte buñ fi jógee am na yeneen défi yuy ñëw défi yooyu mooy lan danañu war a dem iyaa jogante foofu ak suñu yeneen naataangoo yi te su boobaa itam bëgg nañu raay yi ñuy def teg yëpp ci biir sport bi ñun Koungheul jël ko mais itam bu ñu demee Kaffrine ba yàlla defal ñu ci ndam normalement dañu war a représenter la région de Kaffrine donc loolu itam ñoo ngi gën a tàllal sunu loxo pour que doomu Koungheul yi jéego yi ngeen doon def démb ak tey jéego yooyu ñu gën ko yokk ndax ñun fu mu nekk nii département Koungheul rek moo ñu ñor éducation Koungheul moo ñu ñor bu éducation Koungheul jëmee ci kanam ñun bu ñu tëddee dinañu nelaw donc ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. koo gën am alal am cerno koo la amee ba tey eh ñun ñàkkuñu dara am alal xale am alal am cerno koo am alal am cerno koo eh, eh, am alal am alal am la amee ba ñun ñàkkuñu dara am alal am cerno kookan magi jaarili e kuy fëgg kuy mboode fotooni e, dana ma jaaxalu dem gaynde dan laa dey mboode fotooni man dana ma jaaxaloo cerno boo